murtajan minnatun lana jariun aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam tedd bi ñoo ngi dellu ci seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24 actu di siyaara mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci jataay bi sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Maam Moor ñu ngi koy siyaare bu baax a baax ak mboolem ñuy topp jataay bi bu baax ñu dellu ci jataay bi nin ko baaxoo def mooy di ci waxtaane lu aju ci tey jii benn tomb boo xam bu itteel la waxtaane ak yàq yàq googu nag suñu ko waxee dafa am lu ñu ci bëgg a jullu mooy yàq mi ni yàq ci ndox bu ñu waxee yàq ndox tamit dañ koy jëmale fii ci dëkk bu sell bi di Touba ne ni yàqe ndox mi nga xam ne am nañu yàqin woo xamante ni nit ñu ngi koy def lu ñëpp nag lañ ci jubloo wax waaye am na ñoo xamante ni ñu ngi koy def yàq suñu borom da ko araamal ci lépp lu mu mën di rek daf ko araamal araamal ko bañ ko. yàlla dafa bañ yàq ba bañ ku koy def rawatina lu jëm ci wàllu ndox ndox yonante bi salaa salaam daf cee waare wax ci lu bare bare bare am na ku mas dikk di jàpp jàpp da xam ngeen ne mooy ku jëm ci julli wala ci jaamu yàlla di jàpp di sotti ndox mi rek ndox mi bari yonante bi ne ko ah yaa ngi yàq ndox de mu ne ko jàpp ba ci yàq mu ne ko waawaaw mu ne ko boo doon jàppee ca tefesu géej ga sax yàlla daf laa aaye nga bañ yàq kon nit ki eh, li war ci moom mooy lépp lu muy def mu bañ mooy ci ak yàq réew yi nga xam ne avancé nañ de ci ndox ci wàllu ndox te boroom xam-xam dañoo wax ne guerre yi nga xam ne jàpp nañ ne dina amaat ëllëg yi ñëw ci sunu kanam mën na noo jàpp ne boroom xam-xam yu bari nee na li koy sabab mën naa dem ba ci ndox lay doon ndox mi ni yàq ndax bu fekkee ne ndox fi nga koy jëlee dafay jeex yow ngay jël di utiliser loo xamante ni soxla woo ko muy doon loo xamante ni mën naa noo dem ba problème mu ndox ñu am ko te loolu jàpp naa ne réew mi yenn saa yi ñu jànkonte coow yu mel noonu benn bi ci des mooy bu dee ci réew yenn yi dañuy aaye yàq am na ci benn waay boo xam nee na man damaa dem ci benn réew rek nee réew bi ma dawal oto ma dawalee gaare bi ma gaaree di dugg ci benn bitik boo xamante ni bu jege la ak fi ma gaare bi ma dikkee toog nee na ma toog te police bi mi ngi taxaw di ma xaar ci buntu oto bi nee bi ma dikkee jënd li may jënd daal di ñëwaat yéeg ci oto bi fekk nag fayuma oto bi damaa bàyyi oto bi rek muy ralentir nee bi ma dikkee waa ji ne ma bu jox ma benn kayit ne ma police daan ma da ngay fay ma ne ko lu may fay man gaare wu foo xamante ni dama maal gaare wala fi ma gaare wala fi ma droite dafa baaxut fii rek laa droite mu ne ko du ci loolu lépp fi nga gaare baax na amoo benn problème waaye oto bii nga taal bàyyi essence bi muy ralentir te lakkuwut ci dara lool lan lay jàppee yàq googu seetal loolu bu fekkee ne ay réew yoo xam ne réew yi duñ jullit waaye ci développement ak bañ yàq ci lan àgg ñoom ba organiser noonu seenam réew jàpp naa ne bu dee jullit war na cee jànge dara war na cee jànge lu bari keneen ki ci des nee na damaa dem ci benn dëkk bi ma demee benn restaurant rek laa dugg bi ma demee bi ma ànd ak sama benn xarit nee na bi ñu jëndee lekk ba noppi bi ñu lekkee ñu desal fa nee bi ñu desee nee na ma fay waaj waaj ne ko li ci des da ngeen koy fay de mu ko ah ah ñun ñu jënd lekk ba suur li ci des ñu kii ko nga ne ko mu ne ko waaw li ngeen jënd dafa ëpp da waroon a jënd lu yam ci yéen waaye li ngeen jënd dafa ëpp kon da ngeen a yàq li ngeen yàq da koy fay parce que ay nit ñoo ko waroon a lekk ngeen fexe ba nar koo sànni ca poubelle ba seetal nit ñi ci ak ñoo xamante ni buñ la lay nettali yi mu doon du doon réewu jullit ay réew yoo la yoo xamante ni ci seen wàllu organisation ci seen wàllu kii waaye ñun ñu dellu si ci wàllu ndox Tuubaa xoolal ndox mi neen ko yàqe xale bu ndaw nga mën koo jox satala wala nga mën a ubbi robinet robinet boo xam sécurité woo ko defoo ko dara wutaloo ko xomb wutaloo ko wan bu koy tëj wutaloo ko dara robinet bi daal da nga ko bàyyi ci kër gi waxtu wu neex jigéen ñi ubbi raxas xale yu ndaw yu ubbi gan gi ku mën a dikk rek noo mën a def ba mën a am ndox rek moom libre nga xale bu ndaw nga jox ko ak satal di ko ubbiloo xamaloo ko ban problème xamaloo ko ban daase moo nekk ci kii bi te waxtu wu nekk nga fekk ko muy seetaan télé wala dara nga ne ko fayal yaa ngi yàq sama courant bi muy taal ventilateur nga ne ko yaa ngi yàq sama nangam lu ko waral mooy loola ay facture def caa topp ay bu dee fii ci Touba rek benn facture topp ci moo tax nga mën a ubbi robine tiwo bi bënn nga mën ko bàyyi noonu muy seeb di seeb di seeb nangami at amoo ci benn problème ndax leer na ne la yow facture duñ la ko indil duñ la indil dara nga bàyyi muy yàq nga mën a jaar ci mbedd mi benn waay boo xam ne day gas rek moom fexe ba dagg tiwo bu ko daggee yoonam nekku ca la muy def mooy bàyyi ko fa noonu ndax parce que xam na ne ndox mi fayunu ko kenn ku ko contrôler ku ko mën a jàpp amu ci mu def lool rombal ñaata tiwo ngay romb ci mbedd mi yoo xam ne danoo bënn di seeb ndox mi di dem kër yi ngay dem ñaata kër ngay dem fekk robinet yi di xelli koo xam ne daa tujj robinet courant dafa coupé mu tijj robinet ba fayu ko robinet bay fanaanee tàkk mas naa koo romb fii ci went 28 nga xam ne benn étage boo xamante ni dañoo ubbi kii robinet tàkk nga xam ne ndox ma dafa mujj di wal di wal ba ci wàcc ci suuf ci kaw étage la waaye ci tëli sax dafa tooy xëpp soriwul fii ci wetu kër sëñ na Diouf làmpaay benn étage yu nekk foofu waaye loolu li ma ci bëgg a wax rek mooy nit ki dafa war a am lu muy kii xoolal tey ci nit ki fi muy jàppee robinet. nga dikk xel li muy jàpp yow waxtu wi ngay masaa sa bopp ndox maa ngi sotteeku waxtu wi ngay raxas sa loxo ndox maa ngi sotteeku amoo fenn fooki jàpp naa ne loolu dara gënu koo doon ak yàq nga dikk jàpp keneen ñëw jàpp keneen ñëw jàpp keneen ñëw jàpp ñaata nangami litre yi ndox ngeen yàq ci loo xamante ni benn litre bi rek xawoon ngeen cee mën a jàpp xoolal sunu mag ñu baax ñi bidon yu ndaw yi nga xam ne dañ koy daan yor di ci jàppe ah. yow nga bëgg yow fi mu toll amatul benn nit wala benn personnalité boo xam muy jàppeeti sata la ci lowaa boobu lay jàpp ci ñëw bu ñëwee ubbi muy li muy jàpp tuur naata mi litre ci jàpp yow boo xoolee li nga jëm jaamu yàlla gi nga jëm nga xam ne jaamu yàlla goo dalay aay yàq dalay tere yàq dalay tere def lu bon daal koy tere inna salaata te tanha anil faxsaahi mun munkar boo yëgee ne jaamu yàlla nga jëm war ngaa yëg li ngay duggee ci jaamu yàlla te danoo wax ne nit ki su fekkee jàpp na jàpp mu rafet mu teey moo xam ne kii na ni nga xam ne buy raxas tànkam ni tilim yi di deñe noonu la bàkkaaram di wadd xanaa ko kay yàlla defal la ko ci jàpp waroo di yàq xoolal léegi ci ci biir wanag yi rek dugg ci lawaabo yi ci nekk nga xam ne moo nekk ci kii bi boo demee ci kay saa boo defee nangam li ngay sotti ci ndox ñaata litre ndoxoy sotti foofu ndox mi war nañ koo mën a jël am fun ko mën a denc man koo defaat ci ay lawar robertoire la xaw ma ngir ndox moomu am leneen lu mën a sariwaat donte am na ñoo mën nañ cee bay meneen mbayam noor ndox ma mën nañ koo defaat ci yeneeni formalité yoo xam ne dana mën a amalaat askan wi njariñ ndox mooy li nga xam ne nit ki mënu ko ñàkk nit mën naa xëy toog ñetti fan yoo xam ne lekk ko waaye nit ki mën mënta xëy benn bis ba mu àgg naanut ci bis boobu kon yàlla day seet li nit ki gën a mu gën ko koo yombal yombal googu nag tekkiwul na danga ko war a yàq ko war a yàq nit ki mën naa dugg ci kër li ko yàlla li lay wan yomb gi mën ngaa dugg ci kër ne sëñ bi may leen ma ndox ma naan ñu daal lay may waaye tey dugg ci kër may leen ma ma lekk xiif may leen ma déedéet am na heure boobu boo ko ñaanee duñ la ko may te néew na sax nga dikk rek ñaane ko noonu may leen ma ma lekk déedéet waaye bu dee ndox mën ngaa dugg na may leen ma ma naan mën ngaa dugg sax gis robinet ba fa nekk wala kii ba nga daal di dem tàng naan kenn du la wax dara waaye sañoo dem rek ñëw ci kër gi dem dugg ci waañ waañoo rek tibb lekk déedéet kon yàlla lim la yombalal daf la ci dafa xam ne mënoo koo ñàkk mooy li nga gën a mën a tëlee ñàkk li nga xam ne nit ki nooyi la gën a mën a tëlee ñàkk moo tax yàlla defal ko ko ci air bi buy nooyi du ci am benn lum ci composé bu fekkoon dana waxoon ne bala ngaa yi daa am looy looy looy looy fonctionné ci yow kon booy nelaw doo mën a fonctionné dara yàlla ne kon ginnaaw yow mënoo ñàkk bañ a nooyi kon naa la ko defal ci air bi ngay nooy booy nelaw ngay nooy booy lekk ngay nooyi booy nangam nga nooyi waaye loolu lu ci manqué woon ay ay minutes yu ndaw rek nga daal di faatu ndox nag dafa bokk ci yool bi nga xam ne Seydina Ousmane yonante bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy wax ne ko Ousmane di toog ba bët ko ñaanal maanaam julli gee toog ba fajar muy ñaanal Ousmane Ousmane booba benn teen bu mu jëndoon ci ay yéefar jëloon teen ba jox ko àddee yonent bi teen boobu ci la ko yonent bi doon ñaanal kon nit ki ndox lu ama solo tubaa gi nag nin koy yàqe ëpp na nag ëpp na ñàkk fay gi rek xañ na moo ci lay delluwaat du delluwut ci dara waaye ñàkk fay gi lay dellu ndax bu fekkoon nit ki bala koo am bala koo nangam dina ko kii dina ko fonk nit nag lu ko yomb ci moom ñaare du ko fonk fonkin woowu amoo genn kër goo mën a dem fekk robinet ba ñu am placement buñ ko placé maanaam defar na robinet bi wutal ko kànnaar di ko tëj di ko ubbi wala ñu wutal ko wan bu baax wan sax ko wut wan boo xamante ni boo kiyee ci ngay tëj kii bi fermer ko yore caabi ji amul demal ci ñiy fay ndox benn robine buy balaage ni robinet yi di balaage amul ci beneen dëkk dëkk boo fi dem da ngay gis ñu tëj wan ba par heure la ni root bu heure rootee ñu jëlaat caabi ji denc ko mais Tuubaa dañuy yàq rek yàq rek ci ndox mi rek loolu nag xaw naa ñaaw ci dëkk bi ñuy wax na yàq kooku ci léegi bu nu seetoon ñaata liitari ndox nangami ndox la ñuy utiliser yoo xam soxlawuñ ko kenn xamul nu mu toll kenn loo xam ne demut ci dara demut ci dara maanaam dékk ab paan mu tuuru jox ab xale satala xale ba dem ca robinet ba bu añee sax am na ci ñoo xam seeni kër ci robinet yi la ñuy raxasoo duñ duy ndox raxas sax taaj ko waaye dañuy dem ku jóg rek dem ci robinet ba xel raxas boo demee ci wanag yi saldime yi dañuy ubbi di pacca pacca kenn du ci sangu-sangu bukki maanaam dañuy ubbi rek muy xelli di xelli di xelli di xelli ba kenn xamul lu doon kenn xamul lu doon lool nag yàq la yoo xamante ni lislaam bëggul yàq tuubaa gi sëñ tuubaa bëgg ko xéewal gi nga xam ne ñëw na fi te tuubaakat lu ñàkkoon ndox la lu ñàkkoon ndox la sëñ laat leeral nañ ko baax nee na fii ci tuubaa gis naa fi nit buy sebet nit ñi wër ko di ko wax may mu ne leen duma leen mën a may lépp li ci da dama koy jox samay xar daaru muxti gi wax nañ ne bi ko borom daaru di sanc nee na ab xale daana toog ci yaayam boot ko mu naa ko yaay dama bëgg naan dama bëgg naan dama bëgg naan ba faatu ci kawam kon dëkk yi bari ndox yi yombewut woon nii bu dem ba ndox mi yokk ñu koy yàq nii yàq nag kenn mësu koo def ba am ci ndam nan yaraat njaboot gi xam ne lu nu yomb lu nekk mën nanoo jafe ci kanam wala ñiy ñëwaat te bokk ci ñun suñuy sët yiy ñëwaat suñu doom yiy ñëwaat wara a ndox bu dikkee fekk ndox mi fi waroon a dunde ñoom ñun ñu fekk ñu yàq seen ak dund du naqari tey jii bu fekkoon ku xëy boo waree añ wala nga war a sangu dañ laa ci dëkk bu sori Tuubaa gi am na ci ñoo xamante ni fan daan jëlee ndox sëñ bi sëñ blaat nee nee na am na ko danga daan xëy ba jant so genn kubéer ak ndox ngay dugal ci sa gémmañ ah? ba waxtu wi nga ko naanoon waxtu woowu dellusiwaat daanaka ndox ndox amu fi woon booba kenn talta sangu kenn talta naan kenn tarta jël ndox mi di ko loo lekkee rek nga koy kii waaye sangoo ko ak di ko fobee rek di ko def nangam yooyu yëpp amu fi woon buñ demee ba loolu lépp xéewal gi wàcc si dëkk bi sëriñ bi indil nu ko xéewal googu liñ ko war a dañ ko war a jariñu waaye waruñu koo yàq nit ñi nañ delloo si waat seen xel xam ne yàlla indiwuñu fi ngir yàq def nu fay indi ngir ñu sàmm li nu fi fekkoon bu nu demee ñeneen ay dëkkaat ñooñu fekkaat ñu sàmmal leen ko bu fekkoon jafe yi Tuubaa dundoon ci ndox lan fi fekkoon ñu nit ku dikkaat fekkaat fi loolu kon tabax yu rafet yéeg lii fi def dinañ ko tal kon ku ci nekk la ngay tal mooy loo def ci sa biir ak loo naan ak loo sangoo sangu sax doo ko tal daanaka loo toggee loo def nangam léegi ñu dem ba lii lépp am fi nag ku nekk mën a am sa biir kër nga mën fa am juróom benn robinet néeg bu nekk nga mën faa def ab salle de def fa nangam ndox ma di xelli nga mën a am ab robinet boo def ci ëtt bi mën a am ay robinet yu baree baree bari ah demal ci yenn dëkk yi ndax robinet yi nii robinet yi bare Touba am nan ko amuñu ko am na ci ñoo am benn koñ la benn koñ ba bépp ci benn robine la ñuy roote ñoom ñëpp ndax amunu ko seen kër am ñoo xam benn kër gi benn robinet ci am benn nit a yor caabi ji bu nu ubbee xëyee ubbi ko ñu root bala noo rootaat waxtu woowaa jotaat ku ci nekk la nga yor yaa ngi koy économiser naan sax boo koy def da nga koy économiser ngir boo naanee ndax boo ko pasar pasaree da ngay dem ba doo am ndox yow xéwal gi yëpp wér la nga sori xéwal gi yëpp wër la amoo loo koy def lu dul di ko yàq am na dëkk yoo xamante ni ndox daanaka dara ndox ma ni naan boo fa demoon sa yaram day daw ndox moo xamante ma nga taq a taq bëgg de yow yàlla wërsëgal la nga am ndox moo xamante ni mën nga cee naan sangu ci ndox mu xaw a neex mu neex ndox moo xamante ni yooyu yëpp am ñoo xam ne la ñuy naan buñ la ko wanoon da nga naa déet sangu sax doo ko defee yow yàlla wërsëgal la ndox yi yëpp di ñëw ci yow amoo looy def nga koy yàq ni lii ay kaddu la yoo xamante ni dañ na woon dinañ ko waxtaane xañ na lu mu néew ne ay benn nit xaw ce tegg seen tànk xaw cee ginde ñun ñu koy waxit yàlla dimbale nu ci ba xañ ne jàngoro ji ñu mën cee wàññi dara waaye yàq gi daal ëpp na ci ndox yàq gi ëpp na lool ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp lu baax rek lañ ci yéene di ñaan yàlla defal nu jàmm Moussa kam mu nekkoon ci caméraman bi ak naa ki nga xam ne moo ko doon réaliser di Awa Ndiaye nga xam ne moo ko doon monté soxna Khady Niang jox leen daje ci seen yeneen i jataay ci seen émission bi ñu tuddee madinatu ilmi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun